waaw maa ngi leen di fay euh, waa wasaare làmb di wax ni wasaare leen ci jàmm te ngeen yegseeg jàmm ñu daal jàmm ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin Fatma nuyu naa leen nuyu ñëpp di nuy senegal monde entier di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada ak kilifa cosaan yi aussi tamit di jiite ci kàddu bi ñi gën a àdduna yàlla xaarale àjjana ñi tëdd opitaal yàlla yëkkati leen ñi caabi fete ginnaaw caabi fete leen kanam yi ñaan dox fi masiba ak balaa yëpp yàlla suñu borom wis fi ndaxu sedd ñu nuy sëñ Abdou bu baax a baax sama sëriñ bu baax jooju merci. xam nga dañoo seeti Garga Mbossé fan yii rek waxtaan ak moom mu ne yow sa combat yéen ñaar da ngeen koy dox dox ba sonn mais saa ci yow looy daw ci Garga Mbossé yow ñeme woo Garga parce que Garga nee na seen ñaar gaa ngi koy dox ba léegi mais yow yaa nangutal kii jël avance bi lu waral loolu. waaw xam nga seddaan naa ko seddaanitu ko. di wax ni gis nga doomu aadama nga dund gore nga dee gore mun naa d'accord moom peut-être am na ñu ñëw ci moom na ko Sa Thiès nangam loolu moom la engagé mais dama ne man ci ginnaaw musu gis nga combat bi ñuy dox ci journal yi du ko du fen ñoo koy njëkk a affiché mais musoo leen toog ba gis journal ñu affiché Garga Mbossé ak Sa ñu ngi koy dox. mais gars yi dama ne. fii làmb léegi la ci deux ans mais boo génnee ci deux ans yi li ci jëm kaw combat bu fu nit wax dun dugal nañ ko journal bi te yéen ñi nga xam ne yéen daa ko wax yéen a ngi doon coow ci wax ji yow mosoo toog ba dégg mos nga da nga mosoo toog ba dégg dégg wax ju mel noonu mosul am. mais Garga Mbossé Sa waxu maman bi ok mais période yi muy wax dama ne dem jamono jooju moom kuñ ko doxal combat am bu buy do buñ ko doxalaa wax di ko wax. da ngay gis ñu affiché ko ci journal yi man Aziz Ndiaye bi muy tudd ay ñooñu man mosuñu maa woo di wax waxi Garga mosul am barke alxuraan te yàlla xam nañu mosuma toog Aziz mooy waxi kooku benn yoon la nit mos a taxaw ne man bëgg naa seen combat mais loolu du combat fii te maxu suba teel combat bi France ko bëggoon tëgg benn yoon boobu lañ ci wax mais boobu maxu. dafa amoon euh, yenn yenn xawma ay kii yu mu waroon régler ci yooyu la nekkoon mais amul benn promoteur ci àdduna bu mos a toog man Salif ñëw ci sama kër baa mu woo ma téléphone baa mu dem samay mbokk na ma sa combat Garga. leer na mais moom mooy toog naan ay diw jox nañ ko minti mille fois maag moom dana kay moom moo bëggoon bëri sama combat maag diw man loolu nangu naa ko parce que man jamono ji may jamono yi may bëri ak ñooñu moom mënul bëri ak ñooñu parce que boobu moom day daan di daanu. man na dama nekkoon sama jamono victoire loolu moo taxoon période boobu man may bëre ak ñooñu. Eh, ma. damay dama la leeral moom loolu muy wax noonu tegu ko fenn waaw waxi waxi waxi waxi la neex la rek la mais mosu ñoo toog dox suñu komba période bii nag dëgg la nit seet na ma nit ñëw na fi te duma fen presse moo fi ñëw wax dëgg yàlla di dox ci combat bi. kak antum man ak Yékini Junior wala man ak Garga Mbossé ku dee ak sa bàmmeel moom laa gis mu sabablu ci di ci sonn loolu guddeeg bëccëg suba ngoon chaque jour dafay day woote moom wax jox signé gu ña contrat des na ci antu ñaari adversaires yi am na nag tamit yeneen promoteurs yoo xamante ne soxla nañ ko mais ku ci sa wërsëg nekk rek di ko jot. mais Sa Thiès ak Prince signé contrat. non non man signé Prince toog nañu ñu waxtaan ñu tënk ci kàddu. ñu am beneen système boo xamante ni moom la bëggoon ñu bëreel ko loolu bindal na ma ko ci kayit pour ñu waxtaan ci mais nag bu dee sabablu rek moo ci gën a sabablu. mais contrat lié wu la yow. non non prince dafa wax ni moom incha allah fin kii bi di ngeen bu juillet ci kàttanu yàlla Sa dina bëre soit moom ak Garga Mbossé moo keneen mais Sa Thiès daal dina bëre. loolu bëgg na ma bëreel ko torop. kii wax da nga wax ak yàlla. te mën na la sonn na ci mi ciy dox bu baax xëy na nag kum ci doon sa sens dinaa la ko bëril mais yéene naa ko ndax sonn na ci mais nag waxuma dama signé moom benn contra signé moom benn contra waaw loolu du Salif ñu bari ne yow ak Yékini Junior depuis daaw ñu ngi koy dox suma ma juumul yàgg na combat boobu noonu Sa Thiès pourquoi Yékini Junior Sa Thiès combat boobu si Sa Thiès la tagee wala ci Yékini Junior. Hmm. boo xoolee mooy bëri rek euh, Siteu am na combat bu am bu mag bi amoon ci la ma njëkk a ñëw tëkk boobu sama loxo bi sax dama ko tabaxoon waaw ci la commencé toog ci média yi di wax nañ ma jox Sa Thiès dafa maa daw nañ ma jox diw dafa maa dox mais xëy na man la gënoon a singali mais du làmb boo xamante ne amateur moo tëll ne làmb ji bëgg naa ko moom nag moo ci gën a wax moom boog maanaam bu amee yenn dayoor yi ci moom la jóge ndax moom mu ëpp lim ci wax musuma ko daw Yékini genre moment yi ñu bëgg a tëgg suñu man ak moom d'accord naa dynamique bu mu nekkoon moo gën fuuf bi ma nekkoon loolu moo taxoon moment bu bëreew waaye nag période bii nag man la fa yàlla teg. man nangu ko man la yàlla teg ci fu mu ko tegoon. mais da nga euh, bu ñu compter suñu yoon. baa ñu teg suñu yoon maanaam Ligue des champions bu amoon. wala ligue des champions de lutteur bu den dem am nga jël leen teg leen fi yàlla xam na ni man maa njëkk a jar. non man du gën a jar de de dama ne la gis nga nit di nga ko victoire mu gën laa nekk ci làmb man ci defet laa jóge moom ci lu mu jóge waaw man omee sama defet ba am na cachet am na ampleur na fi mu bëree amul suma benn moroom bu ko bëree feesal ko amul kon maa ko tane situation man ku ci andi avance seen diggante ñoom ñaar buñ jubóoy ci kaddu ci saison ren gi nag laa ma bëri la mais pour kaddu la ay kaddu déwén moom loolu moom xanaa mooy am ma jox la nga lekk sa xaalis bi rek mais xam nga loolu moom du avance su xaalis. wóoru waa. te su ma nee laa Sa Thiès kese wala du ma bëre kooku ban adversaire la. Sa Thiès du ma bëre xaw ma ah, def année balance Moussa Ndoye. ah moo ko dina def année balance de. <laughs> am na ko def ndax bu saa andoo kenn doxu suñu combat kenn waxu suñu combat kon nag xam nga na bañ a sonn rek boo amee ki ñu ko bëgg a jox na ko jël. mais moom nee na yow moom laa da koo mën la kon na année balance <laughs> maa ci jugee moom kon na ci dellu ndax amul problème mooy doxuñu ko doxuñu suñu combat doxoon nañ ko période boobu xam nga xam nga nit dafa am yoo xamante ni moom laa chaque jour Aziz Ndiaye da koo dox waxtaan moom. xaw ma daa gëstu liñ ma fay moo ëpp moom liñ ko fay mu toog ci journal wax ko ci soleil la toog wax ko mu man su fekkee bëgg naa bëri moom day damay damay xaaj sama avance sama xaalis book jox ko war ma bañ maa bëri moo ko man moom ndax moom mooy mooy diriger xëy na nag tey jii ñu foofu waaw xëy na làmb nag mun na ñëw boole mun na ñëw bañ a boole mais góob mu nekk ren de na bañ a gëw mu nekk ren laa wax ndax li fi nekk xam nañ ko waaw Sa ak diw Sa Thiès ak diw rek ngay dégg. Sa Thiès Garga kon ba léegi kon moom bu ñu ko boolewu ci bi mu bëgg a basé wu ci man dong. Ah. dina métti wala mu tëggal ko boppam rek. Ah. beneen bi mooy Sa ñu bari nee nañ gars yi dañ lay waxal mais ñeme woo ci muy grand contre gis nañ ni euh, Ama Baldé dafa xeexal boppam ba am Modou Lo ñu gis ne booy Niang xeexal na boppam. ba naan Balla Gaye Balla Gaye ba promoteur bëggoon koo tëgg mais Sa Thiès yow ñeneen ñi ñoo lay xeexal naan Sa Thiès Eumeu Sène pourquoi Sa Thiès moom it grand contre petit lu tax taxaw moom it dëggal boppam moom ak Eumeu Sène. Euh, xam nga man toog naa fi wax ko boo xoolee Ama Baldé xeexalu boppam Ama Baldé dafa liggéey ba am Modou Lo. mais tamit daf ko toog attends ah. dafa dafa liggéey ba am Modou Lo ndax xam nga la moo doon da liggéey bañ ko nattee ci diggante moom ak bu muy dugg ci poids lourd yi. moom moo daan ñi tax mu dugg fa du dëgg tey boo nee grand contre petit boo ci génnee Ama Baldé Modou làmb day dox seen diggante force te Ama Baldé dynamique bu mu def bu bari Modou moo gën ñun li ñu a def jóge ci defet bëgg a dem jël ko ca kaw bokkuñu version du dëgg man taxaw naa woo ko taxati woo ko man man maa ne Eumeu Sène laa bëgg a bëri dégg naa ci nit sax ba mu naan ay euh, làmb yi nañu xool yenu mana ñu def ko man am naa ci grand compte petit yi bañu ma ko de mais nag bu neexee yàlla day day doon loo mun naa nekk wala mun naa bañ a nekk. mais Sarr dafa mel ni xawoo yëpp ëmb seen parce que xam naa lim nu sonal xam nga gëtëb sa mag Omar daan ko fois lag dëgg est-ce que nekkul tamit lim leen yàpp. moom moo tax bëggoo sonn su kii ndax ni nga waxee moom par rapport sànq ni nga doon waxee ay ñoom garga mais Eumeu Sène rek nga wàccee sa ton. non xam nga mooy li may wax rek gis nga baat bu yëg baat bu wàcc <laughs> jëf ju nekk ko gën rek du dëgg bëgg naa bëri moom bëgg naa bëri ak moom xooluma lu mu yeb xooluma lu mu yebul mais man sama jëm bopp man maa ne bëgg naa bëri moom te yàgg naa koo wax xëy na nag peut-être. entraînuma kenn entraînuma kenn. mais bu arbitre sifflé moom ku ma yàlla booleel li ma bëgg a def ci yow su ma yàlla mayee tal ak tawféex ak jàmm ak salaam may ko mboolem jullit ñuy toog di seetaan ak adversaire may bëril mun naa la def li ma la def. ma seen boo ñëwee man de gëm naa ko te bëgg naa ko gëm naa ko bëgg naa ko loolu laa jiital bëgg naa bëri ak moom voilà. mais ba grand contre petit. dañuy ñaan yàlla mu am combat Modou Lo Ama Baldé. comme gëmu moom ren moom. waaw loolu moom dëgg yàlla comme tey euh, tey saison bi gàtt na neex na ñëpp bëri neex na ñëpp bëri mais nag dëgg la dafa laaj mooy xam nga tamit nit boo toogee na combat yi làmb xaa làmb xaalis sa làmb làmb xaalis koy tëgg mënoo toog jël sa temps yor sa benn som nga ne som boobu laay yemale déedéet jugal nga sol sa dàll dem xooli sa sponsor nga waxtaan ak ñoom ci mbirum combat ñii monté combat ñoom ñoo gën a xam ne ñii monté xam nga tey mbër bu ci nekk xeeb nga leen xeeb nga leen lay fay mais promoteur bi tam ñaanu yàlla jël xaalisam jox la ko ngay daanu baa ngay tëgg làmb joo xamante ni buñ ne ubbi lañ porté nga andi ci ñaari oto gis fa ñett nit wala ñeent nit loolu ko ci xol promoteur bi loolu du ci sawar beneen bi ci des amateurs yi ba gënul leen stade lu koy feesal mooy nga tëgg ñaar ñoom am public tolloo doole nekk ci benn guddi yoo xamante ni ñoo koy dox boobaa boo ko tëggee mën nit mën na sax dundal làmb comme tey Papa Sow Siteu day dundal làmb mais quant à yeneen kii mooy loolu. actuellement moo fi ne combat bu fi bu mag bu fi nekk. neex la de. làmb ju lay doon. ah. ah lu amul favori am ak ku ci daan. mais bëri nga seen bëre ñun ñaar est-ce que méngoowul. seen bëre moom méngoowul waaw ku ci daan daa yaay favori ndax sax <laughs> lii dafa garaaw. da non ragaluma. Ah, am na favori mais. cest à kenn ku ci nekk même bu benn foor la am nga ko ci yow boo mën a daan sa moroom ndax da ngay bëri da ngay kii ki ñaa ki may favori ki may favori nga dem ke daal mais laam moo lu ne noonu gëm naa daa ku ci gën a sérieux ci biir géew bi yaa saas boo ñaa Balla waaw gars yi ñu ngi ciy wax rek mais gisuma ko ci dox aussi tamit li nga wax rek. boo ñaaw moo ci avantage ndax moom mooy fayeku lu mu mus a moom mooy bëre koo xamante ni moo nekk ci kanama moom moo bëre koo xamante ni bu xalaatee ñooñu fu ñu bëre fu ñu jaar moom jaaru fa kon moom mu kay sansam dëgg lay doon rek mais nag bu dee sansu làmb moom biir géew dëgg yàlla gisuma ko fa. biir géew làmb. bëri daan ñibbi. waaw. xaalis bi. xaalis bi ak bës bi bës bi loolu laa gis. loolu laa gis loolu man. sama Ama Balde Modou Lo. dafa liggéey moom laa la sànq xam nga tey ñu ñëpp ñu nekk ndaw. ñi maag maag booñaa bëri na booñaa daan ma. booñaa am na am na paa bu mu tegam. Ama Balde dugg ci kalaaf quatre personnes lañu. mu daan turaay dugg na poule de grand force. kon fekk si na Modou fi mu nekk Modou Lo bëri naa ñëpp sauf Tapha kon bu bëriwut ak Tapha Tine mooy làmba le boo ñëwaat dem na bëri ak Lac de Guiers daan ko kon paam day dafa delluwaat bu ñëwee ñu jox ko ab Balla Gaye te Balla Gaye fan la jógee ci combat moom Modou Lo Modou Lo may kat des arènes bokkuñu version yi dañoo méngoowul de bii daa jubatu droit bii nag dafa jàdd mais dañ ko bëggoon jubanti rek. Ah, na sens. am pour cent. am na sens ci doole ji am na sens ci sañ-sañ bi am na sens ci bëre bi ndax nit li gën a metti mooy bëre koo xamante ne ñemewoo ko. Modou Lo ñemewul am. non koo xam ne moo metti waaye ñeme dafa dox seen diggante ñoom ñaar voilà. duñ tëj te li nga xamante ne instant bi moo lëmb réew mi mooy actualité bi. muy waa CNG seen arbitre yi xam naa Sitor mës na laa arbitré Malick Ngom mës na laa arbitré Babacar mës na laa arbitré euh, Sitor dañ koo dàq à vie Malick ñu aj ko 5 ans Babacar noonu loolu ban jàngat nga ci am. xam nga bu jiitu mooy ñun boo xoolee ba ñuy ba ñuy ñun di def erreur kenn aju leen kenn aju leen léegi ñoom lu ñu wax wala loo xamante ne dañ koy casse seen droit ñu ne da leen aj kon lu fekk ne am na lu xew man d'accorduma aj beeg sanctionné bi d'accorduma ko benn yoon ndax tamit lépp loo gis ay waxtaan la li ngeen may fay dama ko xeeb jarul jarul jarul ŋàññanti nañu waxante dëgg mais woo ko nga waxtaan ak moom nañ trouver solution lii lay fayeeku am nga droit sa salaire nga wax ko si xam te loolu du salaire ay cinquante deux mille yi xamul wax dëgg yàlla xeebal naa leen ko ku dee ak sa bàmmeel xeebal naa leen ko trop parce que tamit gis nga nit nit rek la mën a doon ñoom CNG nag ñoo xam li xew li ci biir man de bu fekkente ni cas bi nii la demee na ko Malick waxee nga ñëw waxaat ma ko nii man de ànduma ci ak ñoom te dinaa ne arbitre yi buñ ci daay buñ ci taay buñ ci daw ministre des sports nag man moom lay ñaax mu woo ñu waxtaan trouver solution gis nga lii wallay la si buñ trouver solution beneen kaa dina fi am. beneen cas bu dul bokk ak amu fi parce que mënoo jël ñoo xam ne ci raison bi lañ nekk xamuñu fi dara nga jël leen ne fi teg kenn koy def bu laa ma ji rek suuf keroog dégg naa sax am na benn mbër boo xamante euh, am na ci ba muy waaj ñi bi ñu woowaat. am na tamit mbër boo xamuñu ko 100 pour cent jànguñu ko comme ñi ñu ko ñuy jàngee man daal dama ne la casse droit bëgg ñu yokkal la jarul dàq jarul aj su fekkee nag ñoom seen CNG ñii dañoo am leneen lu ñu def lu bokkut ak lii nañ génn wax ko nit ñu mën a xam mais bu dee lii lii dong la am na lii lus de. wala ah, am na lu ci lus de barki Alxuraan nangu ma nangu ma ko tey nangu ma ko suba bu fekkee cas bi nag lii la bu fekkee dafa am lu ci suuf nañ génn wax nit ñi ne lii ak lii ak lii moo tax te nit boo ko dàqee te dafa sëkk ak ak ak ak ak ak ak euh, sax ak mbooloo lam mbooloo ko ŋànk. mbër bi amateur bi euh, promoteur bi ménagère yi ak yeneen ñoo xamante ne ay amateur lañu mais ñoo ñëpp bu ñu ñëw di seetaan te kii mooy arbitré bu lenn amee nga génne ko war ngaa taxaw génn ci télé na man kat Sitor lii ak lii ak lii moo doon ñu aj ko ma loolu laa nangu mais nga toog ne pat ñoom Sitor ñu wax li xew yow nga ne nem génnal nga wax li xew nit ñi xam mais nga toog xam li nga xam. kii wax ñu ñëpp dama dox dëgg yàlla sama baat ni poto arbitre yi d'accord naa ci condition yi ñu wax. d'accord naa ak ñoom. assurance dafa dafa bokk ci nit. assurance dafa bokk ci nit. làmb toll nañoo tollu foo xamante ne sax boo signé war nga am assurance bu la topp ba làmb ji jeex nga wàccoo moom mais nag ñun moom ku ñu xoj ak xam bu ñu demee ba waaj dee nag bu fippoo wala mu dee sax total ñu doog a xam ne kii foowul. d'accord nga ñaan CNG instant bi dañoo soxla ñu bees ñi nga ne ay jeunes lañ soxla. làmb daa war a jug man la fii ñun suñu sport rek laa gis laa sportu Sénégal fii laa gis jéem ñu ci lenn lu koy yëkkati fii sa sa intérêt rek yow loo war a jël def ko ci lii mu yokk nga dugal ko sa poos te boo demee toog yaa gën a rëy làmmiñ lu la neex rek ngay wax te lu neex rek nga xam ndax loo jot ankay sa biir poos yàlla ñu yàlla musal ci xeetu nit ñu mel noonu làmb ji war naa mën a jóg gis nga fii nii dama leen waxoon laa di wax ñàkk ëvëri ëvëri wul dara dama avancé woon ci benn côté ay naay xaj na ci ay piment xaj na ci ay adidas xaj na fi mën nga gis sa beneen naar bu jógee ci àll ba wala beneen tubaab bu jógee ci àll ba ñëw investir ci mais ñun lan la ma suñ problème. doxul làmb doxul de amoon na gudd yoo xamante ni aka ngaa yàqam ci dimanche jot ba samedi mercredi sax daan am làmb mercredi kañ fi askan wi askan askan am na am na làmb mercredi mercredi bëri nañ ko àjjuma bëri nañ ko boobu làmb doxoon na kon nañu xoolaat suñu bopp baax xool li nga xamante ni mooy yoon mais léegi samedi ak dimanche stade bi yaraax point loolu fa am. Sarif dina compétir MMA. waa bëgg naa ko xool bëgg naa ko su xool mel <laughs> mais nag amaguma ci chance daal gis ah waaw duggaguma ci. yaa voyage yi wala da ngay contrer sa Sénégal ba combat. waaw bëgg naa génn nag wax dëgg yàlla bëgg naa génn dem waaw entraîner xoolaat euh, leneen li nga xamante ne mooy loolu. aussi di profité di jaale waale tamit Fallou ngoom ak siidi Ndiaye ndax euh, suñuy nit lañu ñu yàgg soon aussi suñuy làmb di leen koy di leen jaale waa Gambie yëpp. di jël euh, jaal gi di ko teg ci suñu fans club yi fa nekk di jaale aussi tamit sëñ euh, Kilaala Fall bu baax mi fi jóge di jaale mboolem jullit moom it xam ni suñu waajur baax lañu mais ñaar ñee nag dañ daan soñ suñu làmb di daj lu nekk kon tey bu leen yàlla jëlee mënuñu lu ñaanal leen yàlla xaarale àjjana ci barke Seydina Mohamed waaw li may tàggatoo mooy di santaat yàlla baax di ñaan yàlla yàlla dafa leen jàmm yéen waa wasaare comme moom lu fi xew yéen a koy wasaare yàlla na tas ba yéen nga jot seen yëfu bopp. mais na. naa bu yàgg. Ah. voilà loolu fi dugal maa ngi koy teg. Ah. moo tax yow nga def ci jàmm te def nànk <laughs> waaw beneen ci des nag mooy di sant ñi nga xamante ni dañ may jàppale dañ may taxaw di ma soutenir dañuy bëri trop mais ku lim juum su mel ni àndaw maam ma Moussa Fall xam nga xoolal kii yéen a tax mi woote Jules Souleymane. <laughs> Eh. xam nga di si gërëm Sayer sama gars yi ma ànd ñoom commissaire dara xam nga Moussa Fall ñoom Adlé Noble di gërëm ñi nga xamante ni comme Omar Bass gërëm euh, euh, kii sax laa wax sëñ Abdou di gërëm ñi nga xamante ni aussi dañuy taxaw bu baax a baax a baax am na ñoo xam sax mu ñëw lim tur mais di gërëm monde Sénégal monde entier di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di gërëm ñi may nekkal di gërëm sama yaay bu baax a baax di gërëm sama papa. di gërëm ñi nga xamante ni ñi ngi ñuy jàppale te yàlla rek a tax di gërëm tamit Assane Assane Minter Bala Bala ak Papi Sané di gërëm Jibilo bu baax a baax a baax di gërëm Moussa Fa Meng bu Louga di gërëm autorité Guédiawaay yëpp ku ci mel ni Aliou Sall suñu maire bi maali Gakou Néné Tall ñoom ñëpp ñu ngi leen ñu ngi leen ziar baax leen dool seen wàccuwaay gis nañ taxawaay bi ci liggéey recherche Guédiawaay bi ñu jàpp di ñaan yàlla nag yàlla dafa leen jàmm di nuyu suñu waa école ñëpp ñoom ñëpp ma ngi gërëm di nuyu suñu soxna yi ne ci kër gi di buri awa gërëm tamit Khadija di gërëm suñu njaboot yëpp di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jaamu yàgg aussi di ñaan yàlla tamit yàlla delloo ñu waxtaanaat suñu xel ba ñëpp déggoo ci kàddu làmb ji mën a jëm kanam ñu ñëpp benn lañu mi CNG bi mi mbër bi mi amateur bi mi promoteur bi ñu ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay rawatina sponsor bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla dafa la jàmm yàgg nga fi nga am jëkkër métti na waaw ba tey di gërëm sa waa ji pare si gërëm nañ ñëpp ak at leen bu ñaaw bi ak ceer sama doom day voilà l'émission tire à sa fin lii lañ leen indiloon Sa Thiès mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla nee naa leen mbër mu disponible nekk koo xamante ni su ma ne koo kar rek ne ko Salif mu ne ma ñëwal ma ko ci remercier nag bu baax a baax ndax tamit wax dëgg yàlla nekk na koo xamante ni daal kon li may waxee nee naa man mbëri man aw ma seen fay mais moom tamit aw ma fayam di ko remercier wat bu baax a baax di remercier nag ki nga xamante ni moom mooy sama caméraman bu ñaawul bi eh. muy Basirou lay fatigable naan la yàlla sa jàmm yàgg Sa Thiès kañ ah ah dama juum waaw di bëgg waat ah ñëpp ñëpp rek comme ni mu ko waxee ay ñoom dafu baala ñoom simel ñoom baala karfat ñoom ñëpp ñu leen di nuyu ak Badara sama lakkal waaw di ñaanalaat ah suñu papa suñu maam muy papa Double Less di ko ñaanal jàmm naan ko papa wéral muccal yow amal jàmm rek parce que li may wax rek on a besoin de vous waaw waaw waaw. <laughs> malal moo gën a ragal suñu kër. waaw waaw nii la sa Sadji xam nga mbëri moom dañ leen di comprendre Basirou di jaa jaajëfalaat bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam te ne ñoom ñooy wasaare lamb wasaare TV naan leen merci beaucoup kontaan naa ci accueil bi. te nii rek la ñuy def nii la def champion yi la ñuy seeti képp koo xamante ne yaa ngi seetaan jàppal ni ñi ngi ñëw te bu ñëwee dañuy dal sa kaw ñëpp ah cat ba cat nee naa wasaare dina am lu bees tàq lu mu leen indi nii nii rek ci kanam rek Basirou dina ko taal Basirou l'émission tire à sa fin xanaa rek ñu dem beneen champion rek buñ paree dañuy dem seetiwaat beneen champion xaw ma fu ñu aw gauche aw wala droite ni lañ defee ak Fatima nee naa dara du yomb borom wasaare kese.